ngoog seen guddi maama ngoog ne asalaamu aleykum ne ngeen baal ko jottali bi sax sëriñ Cheikh nee na ñu ngi ñaan ñépp déglu sëriñ Moustapha ne ngeen baal ko baat bi moo dee wu ko ci kanamu kilifaam ñu nuyu leen ziyaar leen ziyaar leen ci seen barke maam yu tedd leen ci seen barke maam waa jàkk ji nuyu waa jàkk ji gan yi ak dëkk yi gan ñi ak dëkk yi kilifa yi fi rot si yëpp kilifa yi fi rot si yëpp bokki taalibe yi bokki daara ji di sunu njëlbeenu burd démb seenu bu njëkk démb la woon seenu bu yàlla dogal yàlla seet nañ ko fu nekk ci réew mi nañ ko fu nekk ci réew mi feeñul feeñul yàlla def ñu matal weer wi ñu matal ko tàmbalee ko tey ñu matal ko nag tàmbalee ko tey ci bismillahi nii nu ko doore ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na nu dem ba génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamin yàlla gungeenu ndamam ci barke borom kër gi Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu ne ëtt bii nu ne njabootam Cheikh Seydi Aboubacar si gannaaw taawam ba Sidi Ahmed si suñu maam Cheikhul Xaaji Mansour suñu maam Cheikhul Xaaji Abdoul Aziz suñu maam cheikhul xaaji mouhamadul habib seen njaboot yi jataay bi te tey jataay bii nag feeñal ko njabootu cheikh seydi mouhamadunil moustapha si jamil sëriñ mansour rakkam yi ko séq sëriñ cheikh ahmad tidiane si mouhamadunil mansour جابوتو سرين منصور سرين بابا كرسي عبد العزيز سيرين بابا كرسي عبد العزيز جابوتو شيخ عبد العزيز الامين جابوتو سيرين شيخ تيجانسي المكتوم سيرين منصور سيرين منصور اي ركب يا كارناني تاي جاتاي بي دلو وات نخل ني تي مكه ndax ni lañ ko daan séq gàmm di bés bo xamanteni bésu yonent bi la sallallahu alayhi sunu bay sunu bay khalifa bi khalifa bi cheikh seydi aboubacar si mouhamadunil mansour mo joxe won digal ren ginnaaw ñaari at yi ñu top gamu amul mun gam julli yalla yalla ñaari daj ba ñett ba ñett fi fi bi bi fi ci préfet préfet chef ministre de l'intérieur le président de la république

yaakaar naa ni ñu ngi commencé di gis ñu di ko doxal ni ko xalifa bi bëgge woon bu mujj bi keroog wax nañu lu jëm ci wàllu service yi diggante Senelec idrolik SONES SDE wala SEN'EAU ba ci sonaatel aajo yi nga xamante ni bu gàmm jotee danañ koy faral di am ngir mbokk yi dara du diis ci seen wàll ba ñu ci jógee jàngat nañu mbiru santé la ca xew ci hôpital bii ak yeneen district sanitaire yi hôpital régional de Thiès li ñu soxlawoo ci ay médicament lu ñu daan def dañu ko yokk ndax dañoo gis ni ñaari daje yii fi am muy ziar général ba ba ci ashura ba gis nañ ni ni mbooloo yi dogoo pour wuy si wote xalifa bi laaj na lu ñu doon def benn ñu def ko foofa itam lañ ca war a def yépp aajo yi ñu waroon a mottali ci hôpital bi mottali nañ ko mu des li nga xamante ni moo jëm ci wàllu yoon yi Ageroute na mu ko daan séqe ak koskaas pour ñu mën a am dugg bu yomb ak génn bu yomb ak ñi bëggul a dugg biir Tiwaawan nuñ ko mën a contourner maire ba it wax ca la cay wartéef lu ci ne tàmbali nañoo gis ñu di ko doxal ñu ngi ñaan fii yëg bala ñuy yegg ci ci dernier bourde yooyu yépp ñu def ko ba ñuy ñëw mën a ñëw ñëw ñëw bu bu yomb bi ci topp mu jëm ci li nga xamante ni danañ koy aajowoo jaaykat yi dem ak dikk yooyu lañu ci joxe ndax dañoo gisoon ci fan yu néew ci gannaaw aajo dafa desoon ci marché bi produit yi bariwuñu waaye fii ñu toll nii ba ci ba ci dernier daje bi ñu am ca ministère ba wax nañ ni produit yu doon am ñàkk-ñàkk yépp ñu ngi koy am marché bi ñu ngi koy feesal ak aajoy client yi sëriñ bi waxoon it nu ñaan commerçant yi ci wàllu njëg yi ñu bañ koo seeral ba muy diis ndax ku ne xam na ni ci nawet la ñu nekk nawet bu ànd ak inondation nawet bi xaw a ñu bëgg lu daan yomb nañ ko yombal ndax lu mu jàppandi ci njaboot yi loolu itam wax na ko itam jëmale ko ci chauffeur yi nañuy demee ka ñëw lépp loo xamante ni soo ko defee mu indi jëya nu ngi ñaan chauffeur yi ñu bañ koo def waaye njaboot yi aju ci Tiwaawan tey gàmmu si tey war war ay moto Jakarta wax nañ ni ndigal li xalifa bi joxe mooy ku ko man nga dugg ci kaar yi ak oto yi ñëw gàmm si ndax dañoo gis màggal gii ñu génn la ca xew ci ay jéye yépp ay moto jakarta la ñoo ko def àndandoo so song barrage yu ba bari na ci ay bakkan yu ci rot te loolu moo ko indi mu ñaan ku mën a ñëw nga ñëw ak oto mbaa ndax dañoo bëgg la boroom waxoon bëgg na bu koy def ku mu am nga ñëw fekke donte la da ngay jóge fu sori nga ñëw fekke ko te fekke ko yi ba mu jeex nga delluwaat ak sago mooy bëgg-bëggam lii daal laa ni woon dana ko jiital ci ay kaddu jéggalu ko nag kilifa yi delloo leen seen kaddu ndax nun njaboot lañu taataan seeni ndigal moonu fi bàyyi ñaan yàlla bés bii nuy seenu yàlla na ko yàlla indi ci jàmm nu ànd fekke ko ci jàmm yàlla sëriñ Habib ne sëriñ bi dolli na ci ci lii sëriñ Moustapha doon wax ni mu ngi ñaan syndicaliste yi ku ci am lu la metti nga muñal gàmm gi ba gàmm gi passé bu kenn grève bu kenn wane gannaaw kuy ñaxtu bàyyil ba gàmm gi passé teg na ci ni nañu fàttali nit ñi jumaa ju mag ji nañ ko moytu ndax sécurité bi la aju laajul public muy bañ ñu dem fa photo ak vidéo yi wóorul mu ngi koy ñaan ñépp bu ko kenn def nee na loolu dolli nañ ko ci waxtaan ayleen leen ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu nee ci ndigalu Cheikh Seyd Mouhamadunil Mansour la jële kàddu di ko nuyu di ko jox cëram di ko jox wàccuwaayam di ko yóbbante suñu nuyoo ci khalifa bi mu fi jëmmal tay muy cheikh abou bakkar cheikh mohammedou mouhamadunil mansour di ñaan yàlla yàlla gëna guddal fanam yok wéram né di nuy rakam ci top ci mom di cheikh sayyid seydil haaji malik simaw suñu maam sëriñ alxaaji moor jàmm si sëriñ babacar si bu alaaj si amint ak bokk yu tedd yi ñu bokkal jataay bi yépp ak sëriñ mouhamadul mansour siise di xalifa tafsir abdou siise nuyu itam sëriñ abdul aziz kebe nee nuyu daal mbokki diine ji yépp nuyu umma bi yépp di leen ziyaara ci guddi gi waaye di leen ndokkeelit ci guddi gi fa tabaarakallahu nee muy bés boo xam ni walla muy guddi goo xam ni léppam mbégte la ku nekk xam na ni guddik tey jii sayidil xaaji malik tànnal boppam jagleel lépp yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ci aju nee ku ko bëgg a wax du ko mat du ko man waaye fa tabaarakallahu lu nu tënkoon la sax waaye dañ ciy cof rekk delloo Sëriñ Mansuur mu yeggale thème bi ñu tudde gàmmu gi mooy waquulu linnaasi xusnan la wax amatul njariñ yàlla ci mbaxam limu nu digal ci yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً mu waxaat qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah mu waxaat atii'u allaha wa rasulahu ay atii'u ar-rasul mu waxaat النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم موخات وإن تطيعوه تهتدوا فوفو نك موي تيرال بي boko topé rek ben bu ci nek limu do ko digal ngeen andando ak mom mu indi len ba ci man motax sayyidul haji malik تسلاي وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم مدني وصليا يا إلهي وجزي مختار محمد مختار في الخير نيالا ننكو يالا فيا موي مام سيد الحاج مالي منك وانك لعلى خلق عظيم لولو تك منكو غنا اخ ورفعنا لك ذكرك تج منكو غنري لولو موتخ سيد الحاج مالي الرحمن شيئا لنفسي سوى سيد المحمود يوه حبيب وأوجد باقي الخلق كتعظيم حبه عليه تحية الإله تطيب neemu bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy mbégu boppam ku mu bind rek yonent bee tax mu bind la bindul dara ngir bopp aha kañ yonent bi nag bi mu yégee ni yàlla li ko gën a saf li mu gën a bëgg mooy li mu sopp tànnal ko boppam bëgg ko mooy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko ko bëggal ku ko ko soppal loola rekk lay déglu maam seydil haaji malik mu yëg ni moom mi bind yonent bi xam gëdde yonent bi di ko tagg keneen ku ko taggati mënoo weesu taggu yàlla naruumu sana almus tafa baxdama ata sana un min alhadi عليه جميل أقسم أسيم ليلى ولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدود فكيف يطيب العمر إن دمت هاهنا وهن الذي لولا وداع السبيل فدنياكم هاكم إذا عاقني القضاء عن زور من دار الحبيب خليل وهن الذي نور الوجود متلسم متلسم وهن الذي فالله يؤتي لنا المنى فلولا حقا لا يكون فتيل وحن الذي در يتيم وجوهر جسيم وإبرز ذو وحنا الذي قلب العزيز المتهر رؤوف رحيم شافع ووسول وحنا الذي نور الوجود متلسم بي في حجاب الاسم فهو وكيل وحاز اصطفاء قبل نشأة آدم وملا إغلاق الأنام يزيل فما زال منقولا من أصلاف التهر إلى الطيبة الرحم نعم أصول ثبت عن بدري دجل كفر النفا كمن تهفته وقام يجول نار مثنى الموس تفا بعدما أتى تنام من الهدي loolu doy na teraanga foo nee laa ilaha illallah da nga cay teg muhammadu rasulullah boo nee ashhadu an laa ilaha illallah da nga cay teg wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu fa nit mën a yem moo tax saxaabaam حسان بن ثابت مووي كو ويام وريو نانيو ملون تي خاري تي بوتي جاسي نونو لانيو ملون تي خاليما duñu toj waaye ku bëgg dal ci kaw yonent bi ñu wan la ni du fii moo tax mu sant sant الكريم له نعم الكريم كريم الأصل معتاد ما بين يا سيدي يا, رسول الله شفيعنا يوم ينادي المنادي فيه له دم الكريم الهسوى من للكريم الهوس نعم الكريم كريم الأصل معتا معتاء سيرين شيخ نيغور غور جي دا wax معتاء والله يالنا يالا دولي لير سيرين بي نيكون فتبارك الله ci ndigalu Serigne Bakar al Amin moo ni ma ubbil ko mooy boroom gàmmu gi mooy borom kër gi tey ndigalam lañuy déglu bu ne waaw ñu bu ne déet ñu ni déet ñaanal ko yàlla yokk wéram nee ñu ngi siyaar ñépp nag ci guddi di leen balu xaq di gën a dénk sunu bopp waaye di leen gën a dénk njaboot feek nuruwul kilifaam matagul kilifaam njaboot nun ñépp yëg nañu ni ki ñu am ku dul moom amuñu ku mel ni moom ñiñ yàlla boole njabootu Sidi Hadj Malick ñun ñi nga xam ni ci ñoom lañu tënku yëg nañu ni ñañu am doy na sëkk waaye ñun melaguñu ni ni sunuy kilifa melaguñu noonu de kenn mënul dëkk ci moytu leen bu yàggee dafay xaw a niru leneen te moo ñu xaw a manqué nag ñun ñépp cet mu ngi ñuy dugg ku xool jataay bii ku jóg ñëw yàlla moo la indi cofeel moo la indi pas-pas moo la indi yaakaar moo la indi waaye loolu yépp li ko yàq mooy xër ne sama papa Cheikh Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu anhu yal na yàlla yokk leeram da daan wax ni xéer sax baax na waaye xéeree réer yi moo baaxul lu nekk rek fexeel ba jël digg ba bul yéesal bul ëppal nekk ca nekkal ci juste milieu loolu mooy li gën rawatina nag xadara bii ñu nekk discipline bi mu laaj xorma bi mu laaj moo lay mën a may li nga bëgg ndax ñoom loo gën a nite ñu xeeb bu doon seen sago ñépp ci benn taxawaay bi la ne kon fa tabaarakallahu ñu ngi leen di ma masaw ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di ñaanal yàlla di wax ni ñëw leen ni ko sëriñ Moustapha waxe ni xalifa bi loolu la wax ko mën na nga ñëw ku am na nga ñëw ci jàmm ci guddi ci bëccëg ñu ngi leen di xaar asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات وبفضله تتحقق مقاصد والغايات وفي توفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام وأسوتنا وقسوتنا وإمامنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته أجمعين ورضي الله عن بحر الفهامة أبي العباس لأحمد التجاني mboolee mi fi teew maa ngi نكسي di nuyu kenn gannaaw bi ma jiitalee si bi sunu waajur sunu kilifa sunu xalifa sëñ Babacar Sy Mansour moom la ñu toogal fii li mu wax la ñu wax fu mu joxoñ foofu la ñu joxoñ ñu ngi ñaan yàlla mu guddal fanam ak ay rakkam yu tedd si Hajj Malik allahu akbar Seydi Hadj Malick dafa am ku ma am cofeel ak moom mu génn àdduna tey wala démb muy Yuusuf Qaradawi danaa si dellu si waaw moo ko jàngal waaw ak sëñ Bay Siis sëñ Babacar Si Abdou ak seen rakk yu tedd yépp ak sama rak yi nga xamni ñom la fekk fi di sama ay kilifa ndax ñom ñep sama ay dom sëriñ la waaw sëñ Cheikh man dama ni sëñ Cheikh ak sëñ Mansour sama Abdou fu nu tok ñeme na wax ndax suñu gagee suma ma gagee ñu gàgganti ma ndax ño bokk ben daara ke sëñ Mamour Ndiaye Sandar ma leen fa jiitu mais ñoom fa fekk donc bi ñu xalé la daan ñu may ñu ma di kon vous ñu ba lu normal la man dama content ndax Cheikh discours mu def amul kum leen faté di est ni dara jogu fi que si yonent sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ju nga xam ne ji ñaata at a ngi nii gàmmuwul ñu bare dem noonu waaw ana tafsir sax demul yu bare bare bare dem noonu sëñ Pa Malick ak ñu bare goor ak jigéen as sàll bërki démb waaw ak Cissé ak Cissé ñi ngi ñoo daan animé tey dem nañ normalement deux ans yi il devait y avoir des trous dans la raquette mais dafa mel ne kenn wu Saint cher, def un compte rendu nous rattacher à waat ci Mansour. Seigneur Mansour il y aurait un compte rendu organisationnel pour nous rattacher à bàyyam Seigneur Abdoul Aziz tout le temps d'une manière professionnelle bërki nous dañu def réunion au ministère de l'intérieur man dama kontaan man mën naa sax bañ jël kàddu ko am du wala fa ko wax li fi mag ñi bàyyi waaw fa amal xiyaam fa innaha ka xiyaamihim wa wa ara nisa alxayi xayra nisaiha arab ba dafa wax ni man de dugg si naa Tiwaawan berkelee yam fa daan fekk laa fa fekk ba tey

waye mag ñi dem nañu te yàlla sam bay daf ma daan wax du yéen mag ñi la daf ma daan wax yàlla dafa tag mag ñi ci alxuraan tuddu len ulul baqiya waaw tudd leen tuddin bu nga xamni bu rafet a rafet yanhawna anil fasadi fi l ard illa qalil mimman anjayna wattaba allazina zalamu ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وإلي أمسل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال من يدمنا فقط مسان بغ أم يوتا أو بدخ أهل العلم وأهل التمييز وأهل العقل واي ماغي دم نانو waaye yàlla wax ni mag ñi dem nanu wa ma kaana rabbuka li yurika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun mag ñi dem nanu waaye tey su ngeen ma tooñee su ma demee ba leen di bëgg duma rek sama xel dem si alaaji malik dem si sëñ babacar dem si ahmed si dem si sama mansu sama abdo dem nanu waaye demunu kon nak tay magni c'est la première fois ñu dajé si bi nga xamé ni feebar bi amna dafa melna benen contrat le ñu signé wa tay dafa melna di yàqu li laajoon doom min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له له مسلمون دا من انغاجمون بوب تاي ماغي ديم نون نين نو في داس فلا بود ني جول انغاجمون بوب ما خامني دوم يعقوب دخون نان كا بايام سوما ديمي كان غيلي جامو ني كو دون جامو كنن كو دوس يالله ak sa yàlla baay ibrahima ak ismail ak ishaq ñooñu la ñuy jaam ilahan wahidan wa nahnu lahu muslim engagement bob mo am tay tay gi bes bi bisu bascule c'est la fin d'un cycle le début de notre cycle engagement bob mo ñu fi indi tay

يكاد يزيغني جناب ولي الله وهو المراجع فبحر اشتياق الله كما وجد قوله كن وفاسر فوق المدري أو يكاد يزيغني جنب ولي الله وهو المراتع جنب ولي الله منقذ مهجتي بلا مولة يا صاحب طامع ذكر الشيخ يا مكارم اخلاقي وتزري بنسبة لأصاف البحر الفار وهي اللوامع جبي زكاء وفاء بل سخاء إناته وحلم وصبر إنه متواضع وعفو وإيثار عفاف صيانة وسعي حنان واحتمال يتابع له أدب بل نجدة وشجاعة فتوة حقا هو يرافع له رحمة بل فتنة بل رأفة له شفقة بل همة ومنافع بتي منيع بحمد الله مرمى وصلة فمن عزه بيض أن أوقيه مانع عجيب بنصر الله في كل حالة مهم بآرائه إذا هو الرادع بتي جليل حفيل عالم وهو علم وحزم مدين بالعوامل طائع بدا قوي روي بل هدى متبين ونور سني نير ووساطع لقد قصه الرحمن حكم ولايته فذاك وراث الدين ختام مقام waaw si jàkka ji pala bu doon ju yëkkati bii moom sëñ Babacar jàkk moom moo wax ni fat dan na dëhri aw yakaadu yuziyox nii janaabu walillahi wal marafiq nee na jamono su xasee ba néeg ba teeñ ba ñagas ba yëri jiku

tàmm wuñ jamono fontoo nanu wala fontoo suñ Babacar wax na ni su fekkee ni jamono nii lay fontoo da seet euh, euh, euh, wali yu bu mën boppam mel na si taxay may bu mel na see Ahmed Tijani nga làqu si gëlëm wël maraatixu maraatixu mooy bi gàtt yi di ñëwee di for mais wali yu boppam mooy gàtt moom moom mooy mën a am yàlla mu tombe nag allahu akbar feebar bi dafa déclenché lañ ñu arrêté lépp ñu sumb jàkka yi laataan mos xanaa kon sëñ Babacar ko doon wax ñëw na jàkk alaaji Malick bi rien n'est trop beau pour alaaji Malick ñun ñëpp ñu soobu jàkk lu nu am dugal si ba yàlla reculé muy daw nànk nànk sëñ bi bëgg dem daf ma wax ni ma ah, ah, ah, na ngeen wax ni ñi leen feebar maa ngi si dëkk bi ba tey te loolu mooy dëgg man maa ngi jóge Corée Corée du Sud laa nekkoon bëgg dem Corée du Sud ba léegi dañuy takk masque soo doxee si mbedd mi ca takkoo masque xale bu tourné eh, eh, eh, sa masque xale bu am sept ans moo la koy mais ñoom xam na lu tax waaye ñu tombe si lii yàlla saafara waaye itam ñu tombe waat si burtu bi taxal ko suñu loxo yàlla jigéen safara waaye mënuñu wax rek dem mag ñi dem ak ñeneen ñi nga xam ni dem nañu il faut que ñu bàyyi leen xel tey suñu cher waaye léegi il faut que ñooñu ñu bàyyi leen xel suñ Babacar suñ Habib ñooñu il faut que ñu bàyyi ñi ma tudd ni dem nañu yëpp yal na leen yàlla gàttal ñu si àjjana yi gën kawe. يالنا لين يالا غا تندوك سارام بو وجوه يوم اذن ناعمه تصعيا راضيه في جنه العبيه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرور مرفوعه واكواب موضوعه ونماذج مصفوفه والزرابي أقول يا مولانا إذا جبريل يا قد يلا ده إذا هم دوما يلا نسمع كاني سوينيري سمع كاني suñ ñëwee ba ñëw si sama kanam seen filmu àdduna laa leen di dawalal suñu gisee film bi xam ni yiw rek a si nekk dañuy bot seen loxo di doxantu si àjjana yi gën kawe di wax nag lan lan fay fekk xam nga yàlla ni ñuy waxee rek di wax di wax di wax mu mu yëg ni si waxam xëy na gaa gëmul ndax li mu proposé gars yi dafa rëy trop mu ne kaay la ñu waxtaan afalaa yanzuruuna ilal ibili kayfa xuliqat mais xoolal asamaan dëkk ba dëkk ana benn tube moo ko tee néeg bi tey woon tube yi kenn du ko tey mu ne xoolal asamaan réew ba réew continent ba continent xoolal asamaan bi lan moo ko tey xanaa ku mën loolu mën na def nag إلى ليبيني كيف خلقت من يخلق نما جنم خيل سدوم على ويا لا تكتر بدوم على ما بدم بدوغل سي بكن بختكم توم يتيكا من يحنا كده فلول من نجات الموقع وإلى الجبال كيف صوتها كيف نصيبها من يخلق أي ملاهي

dem wuy ji boroomam ñi nekk ci kaw suuf ñoo nekkoon ci tiis ak njàqare waaye la ñoom am na leneen luñ ko perto ina jinaana ala tasmin ma Serigne Mansour sa maam nee na innal jinaana ala tazini yawma qudaami ruuxihi tarikatun بنا دائما خليفة إن الجمادات كادت منه سابحة فكيف من أمن بالذي رده دائما سري منصور سمامني إن الجنان على تزيني ودوم روحي تارك الدنيا على علينا على نبي وعلي سرين بنا ني ماغال صلى الله عليه وسلم لوخو تاخو دائما سري منظر سمامني إن الجنان على تزيين يوم قدوم روحي تارك دنيا نفرين على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم سلام دائما يا رسول الله إن الجنان على تزين يوم قدوم روحي تارك دنيا على هنا yal na si yàlla boole ñi fi jógee dem yépp yal na leen yàlla gàttandoo ni mu gàttandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si bés bu tedd bi guddi gu tedd bi nga xam ni tey la ñu tàmbalee buur est tàmbalee buur da amati na waaye tey da am na yonent bi maa ngi la naan léegi waaw euh, ah, fii adilla adilla tuuta في من سيادته فكما بدت مدحات للبدر خراب يا زيدي يا رسول الله شفيعنا sanggup baca madina sigil adina putar Simin siada tibi Fagam badat midhatun Lil badri gharrabi Ya Zaini

للبدر غراب maam sëñ Babacar dafa wax ni li lay wone ni liy tegtale ni yonent bi sang la xoolal nit ñi bokkul ak moom diine tagg ka ñu ko tagg waaw fii aji la tag fii min sayaadati gët la martin Indira Gandhi tey rek laa doon lii Indira Gandhi li mu bind si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ne dafa gis li yonent ni mu rëy si àdduna au premier bord mu yaakaaroon ni la force de l'armée ne jaay seen moo ko may lool mais Indira ne muy gëstu di gëstu di gëstu ba xam ni c'est l'épique di prophète Muhammad sallallahu alayhi moo tax ñi ñëpp ñoo dugg si diine waaw son éthique waaw li mu am bokkaat ñëpp lu ñu leen ñi am mu bàyyi ak ñoom du xëccoo dara te Indira Gandhi jaay ci sax gët Lamartine li mu waxee ñëpp xam ne ko gët lan moom li mu wax yéen ñëpp xam ngeen muy dëggal nag mu dëggal li sëñ Babacar wax haazal waliidu waliidu dum faat waliidahu haazal yatiimu yatiimun fi amhaadu ya sayyidi ya rasuul بالمنى بالمنى سلب جمدنا هذا الوليد وليد فات والده هذا اليتيم يتيم في أنبا. kay li bu doy waar la dépense na yëpp. dépasse na ba dépassé ay bari amul fi beneen kon nag ñi ñi ñaanal ñëpp yal na yàlla ndam la leen si bés bu tedd bi wallahi ma bëggoon nag gannaaw bi ma ñaanale mag ñi bëgguma si woon teel dugg nag sama rangooy day tuur waaw mag ñi ñoo baax deseelu nu dara dama dégg Pape Malick ni sëñ Cheikh dafa wax ni Sénégal lan mooy problème yi nit ñi xamuñu liggéeyu mag ñi mais dafa jot nag ñu xam mag ñi li ñu liggéey fala bu ñu xam te mag ñi deseelu nu dara mag ñi lu ne liggéey na lu ne def na maa ngi wax ba kii démb réunion bi ñu amoon ma leen xool leen le nombre de gamu bi sëñ Mansour def ni Cheikh def loolu la def jël bind yooyu c'est des centaines yi nekk dans sa bibliothèque suñu bëggee bind rek si yonent bi ak sara yonent bi sëñ Mansour def doy na sëkk loolu seen liggéey la xam na li bi ma proposé thème gàmmu bi laa ilaha illa allah dem ba tey nelawoon na xam lu tax dama tombé si benn bande bu nga xam ne bii sama ab moo ko def si si ñett ajox dama duggoon ñëw jël pour ñëw sama oto dafa demoon ñu muy jënd taxi bi ma dugg murid la mu wax si sama mu teg sama benn waxtaanu ma am su ma ko dégg si àdduna mu def si sa ñaar lu rafete noonu musuma ko gis ndax mais ba ko si chauffeur bi mais yéen pour illustrer lii nga xam les moom la allahu akbar ngeen ba am rafete musuma ko gis man liggéey ba kité nous déglu sur la femme la question de la femme mais nous lèverons du point de vue du principe Allahu Akbar. Le, débat qu'il y a en Paris, la violence féminine, la violence contre les femmes, mais c'est chiens doivent être réglés. Ce que nous aussi à toi, il dit à il dit que euh, Philippe Papa, comme gare américaine, d'une intelligence incroyable. pour dit ko war ngeen may ma rek ma taxaw tuuti si Yuusuf Xalabaay dafa am ñaari égyptiens ñu wax muy Hassan ay ala daal Hassan Ayub maa nga xamee Alioune Berse Abdou Aziz da da Jaddaal

mu fess dal góor googu ma tase ak mom rek mu jël ma jël ñu bare dem naan dem ke 114 livres le bind bi ko commencé gul indi problème 114 livres yusuf khalafa ben bés dama dem ke jënd livre yëm ñëw fekk khalifa Mbay euh, bu alaaj Racine Mbay bu luba gor gi sax daawoon nako wo mu defal ko ay jàng ma liñ mag ñi yëpp mokkal nga ko mais il faut que ubbeeku si bitim réew man maa dem teel ah charia jumhuriya ci benn livre yi jox jël livre yëpp ñoo jox ko ni que lii la muy nit ko nga xam ne kii dafa sell ne koy saaga moom fekk ni ñu ko doon saaga parce simplement bon jum si doon sinon day gudd Oui, Madame dem fa au sommet du Qatar Abdoulaye dirigé en délégation bobu Tant bobu ñom Macky Sall était le président de directeur de Petrosen ñom ñu ci avec les sëñ que Bouna y avait euh, député ñu Touré

ni ma ñu la kay jaar xamante na ñuy toog waxtaan waxtaan tisbaar jot mu ni ma waxtu yu jot na ma ni je demal ñuy julli ma ni avant ah mu la ni ma ma may ne que si bàq suis moom donc sama si dafa si rax si dolli benn affaire boo xam ne mën naa toog guddi lëm di ko ñaanal ñu sutura daal yu naan li def le pape Jean Paul II dafa tey mu am benn émission ad-Din wal Hayat à l'ouverture de l'émission mu ni bala may ubbi émission bi dam leen bëgg wax Jean Paul II yal na ko yàlla xare àjjana déglu rek

li leen di conseil rek xale yi toll si jàng fu ngeen gis livre Youssouf Xalabayu na ngeen ko jënd man moom mooy kon dama dama commencé def politique gars yi ma am da ngay def mu ngi nam si sala bay na siyaasa wa tii fu ngeen gis livre boobu na ngeen ko jënd ah, ma leen di sant nag ma leen gërëm di kontaan sama dal na tey xel ñu bare ñu toog dal na ñu ñaan rek gàmm gi nga xam ni moom la ñu jublu di nekkoon ci mag ñi dañuy jéem rek di nab nab parce que sëñ Abdou bi sëñ Mansour bi génnee àdduna fii la toog ñuy def na suñu ab sëñ Mansour bi jafe la jagle boppam la amoon mais xam nañu leen fi bàyyi am nañu droit nag même suñu dul ñoom di nab nag pour que li nga xam ni moom lañ fi bàyyi ñu mën ko jëriñoo ba transmettre que ay génération yu bari la ma ne sama xel dal na yal na ñu yàlla yóbbu si gàmmu bés yonent bi la boole bokk ko kenn du bésu Alaaji Malik du bésu ci Ahmed Tijaan di bésu si bés yonent bi yal yàlla jox kàttan ba nu demee foofu si jàll te képp ku nga xam ne kii ñëw nga wala yaa ngi ñëw jàngoro boo indi yal na yàlla faj soxla boo am yal na ko yàlla faj yàlla am na ko sañ na ko mën na ko yal na ko yàlla def ñen baal ma nag guddal bi wa alaykum wa rahmatullahi taala wa waaw se waaw Serigne mustapha ne xana dañuy sant suñu kilifa yu tedd yi Serigne Mansour si Djamil di ko ndokkeel Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Mansour di ko ndokkeel Serigne Babacar Sy Al Amin di ko ndokkeel Serigne Babacar Sy bu soxamul xayri ak seeni rak ne ñu fi toog ak xalifa Serigne Ahmad Cissé Pir di Serigne Maodo Mansour Cissé di ko masaw toogaay bii sax ku ne xam na ni metti na yabu ko waaye wëllëre ak bëgg rek foto bii foto ci jumaa ji fotowaale ko mu xam ni teewoon na don donte xam nañu seen wéré bi ak seen ngàtt waye am na ñoo xamante bu feebar dugg sey seen yoon ci feebar fa tabarakallahu ñu diko ko jaajëfal ne préfet mohammed du Diallo préfet djibi Diallo Jibi Diallo bo Dakar Dakar Plateau di suñu préfet mu ngi ni tew Serigne Mor Jàmm si moy suñu mam mo magal jataay bi teewal Serigne mam Khalifa si Baye Mbacké yal na yàlla dolli ko te yagal len fi Serigne Cheikh Tidiane jiite